waye ci jotay yi nga xamne mo fi am yëpp muy waxtanu asalafu ma alquran wala ratteele maa yi bi nga xamne Cheikh Mor sar mu koy def eh, ñepp war gor gorlu ñi mën a gul woon ij jàng alquran suñ ca topé dañ ca mën gor gorlu bu baax baax ba dab qurra yi di jàng alquran ni ñom waye bepp qari bo xamantene yang fi jàng alquran nu ngi len di jaajeufal bu baax waye ak kep ko xamne yang yaa ngi topp kër gi tay nek sunu fukelu jotay ak juróom ben waye am lo xamantene mbokk yu bari ñu ko doon xaar di sakku waye yàkkamte won ko lol moy mag ñi nañ daan dundé ak alquranul karim tay nak insha rabbi azza wa jalla ñu fasiyene waxtane dor door alquran kañ la dugg ci sunu rew mi di Sénégal kañ la fi alquranul karim dugg waye insha allah taala daanu yaatal ci daara yu ñeek ya nan lañu def ak yeen jéego lañu def ba ñun ñi ñu mëna jot ci alquranul karim parce que ñun dafa jaadu lol ñu sant leen gërëm leen ñaanal leen ndax ñoñu teel alquranul karim daal di ci def ay yitte ba ñun ñu mëna ci jot da fay jaadu lol insha allah taala sunu mag ñi nga xamantene ñom ñoy ndami réew mi waye ñom ñoo doon xex ñom ñoo doon yaatal ñoo doon gorgorlu ba ñun ñu mëna jot xam-xam waye jot alquran ku melni cheikh omar al Fouti rahimahullah mam Serigne Touba maam Seydil haji malik mam Baye ñass ak ñeneen ak ñeneen Serigne Abbas Sall Serigne Hadi Touré ñom ñep insha allah taala ku ci nek dañu andi ay jotay xol ñom nañu jangé alquran waye ay taxaway ay mawaqif ak ay suwar yo xamanteni ñom mag ñoñe am nanu ko ak alquranul karim mu jaadu ci ndawi tey ak magi tey ñoom ñëpp ñu doon na ko ci ñoom waaye ñu jàngee ko ci ñoom daf ñuy neex lool te neex leen ndax li ñu jot li fi yegg si ci ay demande ñëpp di xaar loolee alquran mag ñi nañ ko daan dundee bari na lool kon incha allahu taala tey la yàlla dogal ñu door ko ànd ko ak yéen ci kër gi nga xamante ne képp koo xam ne yaa ngi safoo alquranul karim képp kuy dund alquran ci réew mi ak adduna bi yëpp ci biir nga bokk muy la maison du Coran baytul quran في السنغال إن تاريخ القرآن في السنغال هو تاريخ دخول الإسلام في هذا البلد سنو وخي القرآن كان لا دوغو دي سنغال من نغاكو لنكله ني موي دوغي تي القرآن اك الإسلام نيوم نيو في دوغندو إذ لا إسلام بدون القرآن إسلام منوكو أم تلودو القرآن الكريم لأنه مما لا شك فيه أن أجدادنا السنغاليين وصل الإسلام والقرآن الكريم إليهم مبكرا قبل أكثر من ألف عام لأب جني أت لا القرآن دب في تريمي كون تيل إسلام دب تريمي كون غا خبني إسلام تيل نا دب تي سنغال لول يلا يلا بورب سبحانه وتعالى يرم سنو مام ييغا خمانتني نيوم يعتنق الإسلام في سن مبكر نيوم تيل نو أكولات واي تيل نو دب تي الإسلام رغبة لا رهبة دانيو دب تي الإسلام تي لو خمانتني سين بكن بكان واي كن فورسي ولنتي ñom dañ ci dugg tawaan la karhan dañu gis l'islam mara ra li ma min al islam min al musawat wal adl li ñu gis ci lislaam yemale gi nek ci l'islam adala gi nga xamne ne mo nek nekk ci lislaam xusnu tadbir xusnul muamala taral ak rafetaluk li nga xamante ne moy jëflante bi nga xamne mom la islam andi al akhlaq al islamiyya allati wasalathum jiko l'islam yi nga xamante bi mu yexse fi ci réew mi te mam yi soxla won ko lol ñëpp xam nañ ne ceeddo gi tasaaro won na lu baree bari ci mbonteef yi xeetu naan sàngaraak façon bu nekk al aadat wa taqalid al baisa xeetu aada bu nekk amoon fii ba lislaam yegsee nag yactadiqu lislaam bi kulli xubbin wa wudd wa dammuuhu fi sudurihim ñu daal di jël lislaam taf ko ci seen i dënn yi fas yéene koo dund mu nekk ngëmuk séeréer waaw ngëmuk séeréer nekkul ne li ma nekk séeréer moo tax ma koy wax ngëmuk séeréer séeréer su ngëmee rek rawatina ñoom daan nañu waate barki fapes séeréer su la waxoon ne barki fapes dinaa la rey rek dina la rey kon ñoom dañ ko gëmoon gëmuk séeréer ñoom ñoom ñoom ñoom mag ña ñu daal di jublu ci li nga xam ne mooy alquranul karim daal di jublu ci li nga xamante ne ñu yokku seen cofeel ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolee da ngeen ko gis li nga xam ne moom mooy thamaratu mahabbatihim lin nabi sallallahu alayhi wa sallam seen meññanteefu bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la mu jur ci seen doom yi ci seen njaboot te ñëpp xam nañ ne yaakaar naa li ñu tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci réew mi di Sénégal néew na nga gis réew goo xamante ne seeni maam ak seeni mag taggee nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu toll noonu suñ ko andi woon ci statistique mag mu nekk ñaata bayit ñaata ci ay qasaid la tagg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al buxuur asitata ashar fukki baxru ak juróom benn yëpp taggee nañ ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fii hada al balad ñoom ñëpp ku ci nekk way nga def ay qasida tagg ci alquranul karim wax sa cofeel ci alquran dénk njaboot gi ci alquran incha allahu taala du nu yem ci mag ñi ñoom ñëpp ku ci nekk lan nga dunduk alquran kese waaye daanu andi seeni abyaat lenn ci seeni qasida loo xam ne tagga nañ ci alquran woy nañ ci alquran kañ ci alquran ñu andi ko fi tari ko fi ku ko mën a bind bind ko insha allahu taala ndax nga dimbas ndikoo ko ci li nga xam ne mooy alquranul karim bi mag ñi duggee ci islam ñoom dañoo def ay juhud ay dañoo def ay juhud maanaam ay effort yu baree bari ci wàllu mokkal alquranul karim waaye tasaare alquranul karim tey jii ñun xam nañ ne yu baree bari ci matériel yomb nañu téléphone yaa ngi fii dangay ngay mën a enregistré alquran foo mën a toog mën nga déglu xusar yi eh, roy ci moom mën a jàng-jàng bu wér téléphone yaa ngi fii xam-xam daf lay yomb lu nekk mën nga koo téléchargé télé yaa ngi fii da ngay jàkkaarloog moom ñaa ngi jàngale mathalan yéen a ngi nii lii ngeen am mag ñi amuñu ko woon ku nekk yaa ngi toog si saal mën am émission bi nga xam ne moo di asalafu ma alquran mën cee jàngee lu nekk ak yeneen émission mag ñi amuñu woon loolu kon dafa jaadu woon ñoom ñu def ay juhud yu réy maanaam ay góorgóorlu ak ay pour mën a tasaare li nga xamante ne moom moo di alquran alqiraa saxiha jàng boo xamante ne jàng bu wér la قام أجدادنا السنغاليون المسلمون رحمهم الله بجهود كبيرة في حفظ القرآن الكريم ونشره ñoom ñu defoon ay effort yu rëy pour tasaare li nga xamante ne moom mooy alquran waaye mokkal ko mokkal goo xamante ne mokkal gu wér la fa bada'u bi iqamati katatiba li tahfidi alquran ñoom ñu daal di taxawal ay daara pour lan mokkalloo ndong yi maanaam mokkalloo seen doom yi alquranul karim kon alquran ku nekk na nga góorgóorlu mokkal alquran benn ndaw daf maa laaj lan mooy kan nga jàppee ne mooy star Cheikh Omar ma ne ko ku mokkal alquran moom mooy star kooku moom moo tegg ci raay ki kon yàlla nu yàlla yombalal ñun ñëpp ñu mën a mokkal alquranul karim bi loolu amee nag fa banaw bi aydihim ñoom ñu daal di tabax ci seeni loxo wa bi adawatihim ak seeni jumtukaay ya nga xamante ne moom la ñu amoon albasita ya nga xam ne melul ni tey jii nga xam ne foo tourné mën nga gis immeuble mën nga toog ci ay bërëb yu rafet lan lañ ca tabaxoon xaytu naxatul ñu daal dem di yett li nga xam ne mooy garab yi yettuñ ko pour xërëm dañ ko yett pour daan defar lan la nga xam ne mooy ay alluwa dañ ko yett dagg ko pour man tam mën ca am ay cib yoo xam ne dañ cey mën a taxawalee ay néegu ñax yoo xamante dañ koy xadd mën faa yerndoo waaye man faa dalloo pour mën a jàngale li nga xam ne mooy alquran wa farasul ahshab ñu daal di lal la nga xam ne moom mooy ñax yi parce que xam nañ ne moom lañ doon xaddee li nga xamante ne moom mooy néegu ñax yi nga xam ne moom la ñu amoon muy euh, ñu daal di taxawal ay tibb yoo xamante ne bant la woon mooy wa shaddul awtaad wa rafaul akwaa yooyu yëpp ñu daal di koy def di samp ay kër yoo xamante ne amaguñu woon lu ñuy tabaxee parce que ñun ñëpp yaakaar naa am na ci ñun ñoo ne ñun ñi mujjee ñëw ñu tabaxu ban tabaxu ban daanaka bareetul euh, pour nga gis ko di nga dem ba ci àll ba yaakaar na léeg-léeg yi ñu baar ma daanaka ñoom ñoo ko gën a dase ñaare <laughs> euh, hakada lam takad qaryatun sénégaliya muslimatun taxlu min madrasatin quraniya góorgóorlu yooyee la mag ñi defoon ba jafe woon na lool nga dugg ci benn village te doo fa fekk benn daara alquranul karim kon tey jii ku leen wax ne daara na dañ ci dëkk bi dafa bëgg alak waa Sénégal dafa bëgg alak dëkk bi dafa bëgg yàlla jële fi dëkk bi dafa bëgg jële li nga xamante ne moom moo ñu may li ñu am moom tax mag ñi ñoom ñu mën ñoo yar ci alquranul karim moo tax ñoom ñu mën ñoo yar ci li nga xam ne moo di al qiyamu wal xiyamu wal aqlaq ci ay taara lañ ko lañ ko doon lañ ko doon amee kon tey jii bu ñu am li ñu am wala dëkk bi bu mu toll fii ba duñu fay naar wi xoromam alquran ba nga xam ne moo ñu dalal moo tax mag ñi ñoom ñu xamoon yoon wi daan ko nit loo daan ko leer loo tax ñu mën a ak tubaab yi ñun tay ji nak nee na mbiri dafa neex ñu ne daara ya tax ñu am li de waye daara génnal xajootuñ fi dootuñ fi xajoo ak yow subhanallah motax tax ñu nañu jaral lu nekk lu ñu mënti am ak fu ñu mënti nekk nañ fa xajal daara yi donte alma di ngeen dëkk donte ay tubaab yi ñuul ngeen xajal leen fa daara fo xamne seen doomi dañ fa mëna jànge alquranul karim xajal leen fa masajid yi xajal leen fa jàkk yàlla buur bi subhanahu wa taala ak lu mu seeseer nañ fa bàyyi ay bërepp yo xamantene pour alquranul karim la donte mbir mi métti woon na ci ñom lool nga xamanteni ñom amuñu yu bare bare waye dan nañu góorgóorlu kana shaykhul kutab yastakhdimu tullabahu ahyanan fi filahati al ard li al halal yaqtaatuuna bihi serignu daara bi parce que jamono jojo yu bari amul won internat comme niñ ko xamé tay ji amul won ci jamono jojo te sëriñ bi day am lu tolloog téméri ndong wala ñett témér wala lu ko ëpp ñom ñep dañu wara dundé ci daara ji kon bu boba ñom faw ñu dem ci tool ya di bay sunu bayé nak pour ñu mën a am la nga xamante ne moom la ñuy dundee béy boobee nag doon na tax ndonga yi dan na ñu jàngee lu bare bare day tax nga am jom day tax nga jàng liggéey moo tax ndonga daara yu njëkk ya fu ñu dem dañ fay mën a nekk soo xoolee lu gën a bari ci moodu moodu sénégalais yi ay ndonga daara lañu fu ñu dem ñefe la ñuy xam dañoo aw ci daara ya jàng lu baree bari man mii di wax ak yéen taxan naa ba sonn man mii di wax ak yéen béyal naa sama sëriñ ay at yu baree bari bari dañ daan dem di daw ay kilomètres yu baree bari dem béyi dañ daan ñëw ñooy jël sareet bi dem rooti ca teen ya dañ daan dem ñun ñooy dem eh, dem taxani matt mi nga xamante ne moom la ñuy jàngee guddi matt mi ngay jànge fajar yow yaa koy yow yaa koy yéen a koy taxani ba pare dañ daan taxan loo xamante ne dañ koy mën a jaay pour sëriñ bi ak waa kër gi mën a ndu ci yu baree bari mais tey ji ñi nga xam ne ñooy wax tey jii ne loolu dafay tardeel ndong bi yalwaan man yalwaan naa lu ëpp fukki at atu yàlla yalwaan naa ko kon tey ji suñu waxee ne yooyu dafay tardeel nit ki day tax xale bi du jàng yooyu ay mbir la yoo xam ne nañ ko xoolaat suñu mag ñi dañ daan taxan dañ daan béyale serigne bi dañ daan yalwaan waye tay ji gis nga ñom liñ fi ma awratuhu min kutub ma awratuhu min maarif wa ulum li nga xamne mom lañ ñu hériteel bayil ñuko fi ci walu xam xam-xam ci walu ay jiko ci walu ay téré yo xamantene ñun ñi war nañu ru sax pour jàng téré yi mokal ko sax jafe-jafe la te ñom dañ daan béyi dañ daan def lépp kon tay ji insha allah taala sunu fukelu asalaf ma alquran ak jiroom ben fi lañuy taxawlu bu sobe yàlla ba bi di ñëw insha allah taala ñu sof fi nga xamne fofé lañu taxawlu wéy ak mag ñi ba kër ak ñu yegsi ci ñi nga xamantene moy suñu mag ñi nga xamantene bind nañ ci walu alquranul karim waaye ñu dugg ci seen dundu ku ci nek ñu leral ci kimtalay katan ma kana min sawabin fa min arrahmani wa ma kana min khata'in fa min nuqsaan salla al ilahu ala nabiyi wa alihi ma labba mulabin aw tahallala muhrimu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh